Ablaye Sylla deux mille quatre waaw Ablaye Sylla deux mille vingt quatre moom lañ soxla ci réew mi fan waaw Cheikh Lo jëmm jooju boo gisee li tax réew mi tànn ko boo duggee si banlieue bi gis jëfam boo duggee si réew mi gis jëfam kooku mooy Ablaye Sylla gis ngeen barabu Cheikh Sidi Moukhtar bi ni mu ko def gis nga barabu Alaaji Fall bi ni mu ko def gis nga Masaalikul Jinaan nam ko def gis nga ndindi ak Kéré Mbay ndox ma fa yóbbu kooku mooy Ablaye Sylla kooku mooy borom Ecotra di nit ku baax nag buur buur Ablaye Sylla dugg si na jàmbaar jooju mooy candidat 2024 kooku réew mi la soxla 2024 moom lañ koy jox kooku mooy Ablaye Sylla waaw Ablaye Sylla lañ koy jox Ablaye Sylla borom C50 borom moom lay jox jël na dalam xelam 2 millions 4 moom lañ koy jox. Thierno Thierno nit ñi defunu xam nañ ke gën si ñoom ku bëgg a dab da ngay togg ndab yu seen kër sëñ Bam waaye waaye Ablaye Ablaye Ablaye ku bëgg a gis jëfam bu dugg si réew mi jëfam a ngi ni faa ngi si réew mi biir réew mi ak bitim réew xam nañ jëfi Ablaye si la jàmbaar ji borom Ecotra kooku kenn du moom nangu naa ko ko mag mais nangu ma ko gën kooku mooy Ablaye Sylla borom C50 le PDG Ablaye Sylla kabi yooyu màggal Tuubaa yi indi ci suuf si le PDG Ablaye Sylla moom la ak yëkk yeeg yëpp le PDG Ablaye Sylla moom la moo ko indi loolu yàlla dogal waaw Cheikh bu màggalu Tuubaa jotee Ablaye Sylla kër sëriñ bu la di def dugalu nag ñu néew doole ñëpp dina leen joxu nag kooku mooy Ablaye Sylla bu ñëwee jafe-jafe yi nekk ci réew mi dana changé kooku mooy Ablaye Sylla loolu mooy changé système changé système laa ko tuddee kooku mooy Ablaye Sylla bu ñëwee système yi ngay dégg yëpp ay noo ngi ànd ak Serigne Saliou Sylla di Ablaye Sylla moom la ñu àndal président 2024 borom kam yooyu borom ñëkk yi borom borom borom borom daal mi ngi noonu rek moom la ma wax ki moom bu yàgg yàgg Saliou jërëjëf. waa C50 la ñu àndal candidat 2024. moo dalal C50. kii moo dalal C50. mu tëb jëf moo dalal. bi ñëwee ci moom la njëkke noo fii ci foire bi mag bi nga xam ne ñoo ngi ko organisé fii ci Touba waaye ànd ak Serigne Saliou si la ba pare dafay ak accès graisse boo am da koy dindi ah, genre bi traitement la waaw soo ko commencé la nuit nga koy jël soo reeree ba pare waaw trois boîtes yi mais bu loo dee mën nga commencé benn bi su jeexee nga soog a kii. Thierno sama yaram dafa daw bi ma seetaanee vidéo yi Cheikh Abdoul Karim sama yaram dafa daw seede ju jimu ji seede andi ko si Ablaye Sylla la PDC ki nga xam ne nee naa candidat 2024 la Cheikh Abdoul Karim seede ni am naan si moom yaakaar ndax Ablaye jëfam kenn ku nekk xam nga ko biir réew meeg bitim réew muy jëf-jëf ju am solo waaye bëggul kenn ku ko wax kooku mooy Ablaye Sylla candidat 2024. Sëñ Abdou Karim nag du waxantu Sëñ Abdou Karim sëñ Fallou ju sotti la comme nam naa si yaakaar béy boo nga dal sam xel waaye Sëñ Abdou Karim nee na am naa si Ablaye Sylla yaakaar kon na dal am xelam te xam ne candidat 2024 Ablaye Sylla yàlla na yàlla dolli waaw li may wax ak sëñ Saliou mi yaayam Aïda Sylla sama yaay day géwalu juddoom tubaarkalla macha allah nu bokk dëkk saate tubaarkalla docteur Silla am dëkk ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi di dimbale dëkk bi mu bokk ak Serigne Ablaye baay sama yaay léegi laa coupé ak moom téléphone ne ko sëñ Saali wa nga ci foire bi te yaay da ma may girif sama yaay ji bu ma ko fekkee njaareem damay teral su ma demee Dakar damay teral su ñëwee Touba gi lu mu fiy def bu ne cëpp man lay njëkk a woo soxna su gaawaan bay géwalu sëñ Modou Karasil la mu bokk ak baayam ak moom sëñ Modou Karasil la ñu bokk seex ma paate boole ndaak ma silla ndeela njaay mbon mi ci njuróom yeekal baaba njuga seeni bay borom maa mi ci diwaan borom maa mi ci kat dimba ngoone ma sumbul Fatma mi ci ngallo yeeg jaam ñi yaay mbokk maam seex Ibrahima Fall koro koo njoogoog yaasin koo njoogu tubaarkalla sa maama daan faj góom yi sa maama daan dimbale jaam ñi sa maama daan dimbale jullit yi tubaarkalla macha allah yaa dëkk saate te saate diwaan benn la ñu bokk seex ma paate boole ndaak kon su ma ñëwee ci foire bi daje feeg yow tubaarkalla macha allah dama lay jox sa jukkal lii rek la. doomi dëkk bi daa ñëw koo xam ni kenn du ko par sant ñëpp a ko xam muy Serigne Saliou baax mii. baayam ñëpp xam ko magam ñëpp xam ko taxawaayam ci réew mi waxuma la Touba waaye réew mépp kooku mooy sëñ Saliou mii di rakki sëñ Ablaye Sylla Ablaye Sylla à travers le monde ci social kuy liggéey moom ngay dimbali waaye Ablaye Sylla lu mu am Touba rek ndax Serigne Touba la wóolu Serigne Touba la doyloo léppam sëriñ Tuubaa la moom Ablaye Sylla kon nag rakam bu ñëwee dikk ci foire bi dugg ci foire bi jàppale jigéen ñi ñëw dugg fépp place bu ne mu jënd ca kooku jàppale na jigéen ñi waaye ab Ablaye Sylla ñëpp xam taxawaayam. bu fàttali rek ne moom ci dans le cadre li naan euh, c cinquante la fi ñëwee mooy kuréel goo xam ne mboolem ñu yëngu ci wàllu entrepreneuriat ci lañ dañ cee lëkkaloo euh, ci ginnaaw Ablaye Sylla mu am ay yéene yoo xamante ni yàgg na ko mébét ci Sénégal ci àdduna mais mu mel ni togg na ko ba ñor na te moom nee na bu koy yàq Touba kenn waru leen ci ëppale moo tax ku mel ni sëñ Saliou mii mu jiital ko ci mel mais moom sëñ mu jaral ko tey jii nga xamante ni bisu feet la mu waroon a mën a toog ci njabootam ak yooyu mu ne déedéet damay sol sama tànk sama daal dem seeti jigéeni Touba yooyu ndax gis na ne li nga ko waxee léegi sëñ Mbacke euh, ay jàmbaar lañ ñu jaa waaye ñu jar a jàppal lañ ci liñ nekk ñoom nag loolu moo nekk seen idée day mel ni sotti ci ak def ci lay ñoom ci loolu la ñuy yëngu ñoom dañoo bëgg ñëw seet mboolem ñu yëngu ci lu domaine yu mel noonu te amuñu xam ñu fexe ñu am xam bi amuñu doole gi ñu jël seen stuut ñoom ñi jàppale leen ba ñoom ñu mën a yaxanal ba ëllëgee ñoom ñu mën a créé yeneen ak yeneen bu ñu ko defee boobaa nga xam ne dinañ dem ba xeex ndool xeex ñàkk liggéey xeex leen ba ku nekk nga xam ne ni sa kër ak sa njaboot di nga mën a am loo xam di nga ko mën a suturloo boobaa daal di dox euh, euh, daw ci xam ne mooy Sénégal looloo tax ñu ànd ak moom euh, sëñ Saal xam naa duñ guddal dañ koy euh, euh, bàyyi mu exprimer wu laajaale ko rek lan mooy doon ay tànkam tey fii ci Touba rawatina ci foire bi nga xam ne dañ ko première édition mais ñu tuddee ko foire gàttandu safar bi ñu jë ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal ba pare di am fierte ñëw fii nga xam ne nii fii la ñu dëkk muy tuubaa di leen wax ne fii moom fi lañ defee suñu lépp ndaxte li may faral di wax rek dara mënut tax ñu ñu ñu bàyyi fi nga xam ne ni fi lañ dëkk statut social bu ñu mënti am mënul mënul tax ñu bàyyi fi ñi nga xam ne nii fi lañ soqee ko fi la ñu fekk baax ba tax na ci looloo ci lañ nekk pendant des mois wër nañ pratiquement tous les départements du pays ngir lawal liggéey bi nga xam ne nii moom lañ jox le président Abdoulaye Sylla à travers le club c'est cinquante pour cent de préférence nationale muy ay entrepreneurs yu dajaloo am lu leen naqari ci doxinu réew mi ak ci maanaam jagle ni ñuy jaglelee marché public yi ba tax na ñu këral tural benn association patronat tuddee ko club C50 préférence nationale muy dox ci wàllum développement développement wu secteur privé national ku ne wax secteur privé nationale munu leen cee génne yéen ñi nga xam ne yéen jigéen ñu jàmbaare ñi parce que bi ma ñëwee fii gis jigéen ñi sama yaram dafa daw parce ku leen gis rek xam na yéen maanaam réew mi rek a leen ñor yokkatem réew mi rek moo leen ñor ay jàmbaar ngeen ku gis transformation locale yi ngeen di def ñeneen ñi di yëngatu yi ci yeneen defar daal locale yi loolu rek day dox wuti ci li ñuy promouvoir muy préférence nationale boobu te yaakaar naa ne képp kuy sénégalais. bëgg sa njariñu réew war ngaa dox ci lu jëm ci luy suqali sa réew te luy suqali sa réew ci lii lay tàmbalee ndax dañ naan olof njaay day wax bay ci sa wewu tànk ndaxte loolu vision boobu noonu entreprise yi am moo tax ñu jël Ablaye Sylla jiital ko ci liggéey boobu ñu koy doxal nag ci département yëpp mu nañu yéen yi samay tànk yi samay ndaw demal leen ma ci département yëpp pôle de développement yi nekk ci Sénégal yëpp ngeen installeel ma fa kër C50 kër C50 boobu boo leen ko installé ci département yi day am organisation day am représentant C50 ci biir kër gi muy jàppale suñu yaay yi jàppale suñu jigéen ñi comme ñii ma gis fii nii ci seeni activité ci biir ci biir kër gi day am école bu lay former ci wàllum métier yi ak ci secteur bi nga bëgg a développer say activité loolu yëpp ci organisation wu C50 la buñ la tàggatee ba nga mucc ayib président Abdoulaye Sylla ci bëgg jàppale réewam ci bëgg développement réewam dina yëkkati xaalis ci poosam muy àddiye jébbal ko ndaw lañ bàyyi ci gox boobu nga xam ne suñ jigéen ñooñu suñ papa yooyu yafa nekk am ay difficulté développer seen activité ci xéewal yooyu ñu accompagner leen ci ba ngeen def li ngeen sababa def ci anam yu mucc ayib ci loolu daal lañuy dox ci lañ nekk te am na yaakaar ni képp kuy senegale bëgg jariñ sa réew am ay ambition ci sa réew war ngaa taxaw ci club bii nga xam ne moom lañ taxawal di leen jaajëfal nag di am fierté ñëw fii nga xam ne fii laa fekk baax di leen wax ne Ablaye Sylla ci réew mi la juddoo doomu Touba li mu am lépp ci réew mi la ko def ku créer entreprise du ma wax entreprise sax mais groupe d'entreprise la parce que Ecotra groupe la dafa am ay filiales yu nekk ci biir maanaam Ecotra moo nekk ci wàllum BTP tout ce qui est travaux publics ci loolu la nekk mais am na yeneen entreprise yu nekk ci biir Ecotra nekk ci yeneen secteur ba tax na ku créer loolu ci Sénégal mu law ba ci Afrique am ay dépa département yu nekk ci àdduna bi yëpp kooku njariñu réew mi moo ko tax a jóg am naa yaakaar di employé plus de deux mille personnes deux mille pères de famille ñooy liggéeyee biir groupe Ecotra deux mille personnes yooyu ku ci nekk foofu ngay dàq sa wërsëg di ci dundal deux mille am naa yaakaar ne bu ñu amoon. cinq yu mel ne Ablaye la dëkk bi dina jóge ci jafe-jafe yu bari ba tax na jëf jooju muy jëf da ci da ci tàmbalee Touba Touba ku nekk xam ne barabu sëriñ fàllu moo tax dafa neex a présenté barabu sëñ Fallou def na ci deux milliards yoo xam ne nii moom moo ko yëkkati ci poosam def ko ci barab bi ba sëñ Abdou mooy seede yi muy seede rek chaque jour nee na barab bi bu ci duggee maanaam day am kéntaan gu gu yéeme gu doy gu doy waar parce que barab bi dugg na ci barab bu ne mais xeetu liggéey bi am ci barabu sëñ Fallou bi amaana mosu koo gis ci benn barab loolu la toftal barabu sëñ Sidi Mokhtar bi defar ko à hauteur de un ku nekk xam na màggalu Touba dañuy. jànkonteel ak ay jafe-jafe yu mel ni assainissement ku xool xarkanamu dëkk bi xam ne laaj na ñu assainir ko moo tax depuis 2016 ba léegi chaque màggal day déployer moyen logistique bi yëpp indi ko Touba jébbal ko xalif général bi muy jàppale askanu Touba ci wàllum assainissement bépp mbedd bu am taataa ñu xar ci suñu tànk tubéy defar ko ba mu muccib ayib nga xam ne gan ñi bu ñëwee dañ ci dal dal bu mën a tawféexe ba tax na daal lépp luy développement ak suqali sa réew Ablaye Sylla ci lay dox chaque jour loolu lañuy dénk ne ñu moom day tukki lu bari ci àdduna bi mais day gis ay xale yu ndaw di développer seen ay secteur d'activité di ca doon ay milliardaire nee na loolu la yéene suñum réew kon ambition yooyu ku koy nuyee ci sa ci sa réew war ngaa jà war nañ laa jàppale tatagal la gunge la ba fi nga bëgg a dem nga yegg fa te am nañ yaakaar ne fi jëm sëñ Fallou dina ko ci jàppale bu baax a baax a baax am na ci yaakaar fi mu jëm ragalu fa sëñ Fallou dina ko gunge ba mu yegg mu ubbil ko bunt bi incha allah am nañ ci yaakaar bu kawee suñ jor te yàlla dina ko def incha allahu rabi ñu ngi leen di jaajëfal nag. ni nga toll rek noonu lañu ñu ak yow ndax Ablaye Sylla sa mag li war a def ci réew mi lépp def na ko te Touba rekk la bëgg kon nag moom ay taxawaayam ci senegal àdduna bi yëpp xam nañ ko moo tax Touba bàyyi nañ ko xel lool ku dégg dégg sëñ Abdou Karim barki démb témoignage yi mu def ci moom ak li mu wax ci moom xam ne Touba gépp bàyyi nañ ko xel kon nag ca kaw ca kanam waaye nii nga def dagg sa yitte yëpp ñëw ñëw ci foire bi maam Diarra. dem na ci place yëpp lu mu war a jënd jënd na ko kon jàppale na jigéen ñi ku xam magam nag xam waajuram xam ni ñoom Touba rekk lañu am. jërëjëf Serigne Saliou ñu ngi lay nuyu bu baax di jël suñu nuyoo di ko teg ci sa loxo nga jottali ko ci suñu mag suñu xarit Ablaye Sylla le président Abdoulaye Sylla laay wax président mu fas yéene koo jëf ci jigéeni Sénégal yëpp waaye. jëf jooju itam mu bàyyi ci xel jigéen ñi nga xam ne ñoo yeewoo Touba ndax suñu mbokk jigéen yaa ngi nii toog ku gis seen stand bu taaru bii sa xel dana dem ci Bamba ñi nga xam ni tey jii ña nga ca gaar bu ndaw di xooli gerte ku gis seen stand bu taaru bii sa xel dina dem ci jigéen ñi nga xam ni ña nga nekk fee ca ndokk di def maraîchage di jóg 4 heures du matin di jël ay marchandises ay lujum di ko indi di jaay ku gis seen standard bu taaru bii sa xel dina dem fee ca marché domine ba waaw Touba ndax méngoowul ak ñu dem ba soppi ko tey jii marché yëpp di ay foire jaadu na jot na te loolu kan moo ko mën a def mooy ñi nga xam ni ay taalibe Serigne Touba lañ comme ni nga ko waxee léegi mooy ñi ko mën a def mooy ñan. mooy jigéen ñi nga xam ne am nañ volonté am nañu bison xam ni ña nekk bitim réew ñu leen di seetaan ci télévision yi loola lañ bëgg a initier ba def ko fii ci réew kon jigéen ñi li ma leen di wax mooy Ablaye la initiative bi mu jël ci 550 bii ngir entrepreneuriat yu ndaw yi ñu fexe ba ñu nekk ay entreprise yu mag di dem ci grande marché mondial yi loolu mën naa nekk te loolu yoon wi ngeen jaar bu ngeen ko wàccul di fa yegg am ngeen vision bi am ngeen compétence bi lan moo leen mooy ku leen gunge financièrement te loolu am na fi ndax sëñ Saaliw Ablaay suñ borom may na ko teraanga joo xam ne mën na koo bokk ak ñëpp te du ko wàññi dara day gën a yokk kon na jàppale jigéen ñi gën leen a taxawu gën a taxawu jeunes yi ndax loolu rek la Sénégal soxla Sénégal ki ñu soxla mooy ku nekk ci seen biir di leen jàpp di leen jàppale wax nga ko léegi foofu rek laay daaneele Bamba ndax 2016 boobaak léegi ay at la te waxtu wu nekk matériel bi muy déployé di ko indi Touba gii ngir liggéeyal sëñ Touba ñun ñëpp ci teg ba wax dëgg yàlla kon ñun ñi nga xam ni ñoo nekk ci biir commune Touba rawatina ñu nekk ci mairie bu Touba màggal Touba jot waa dëkk bi yëpp jaaxle gan ñiy ñëw jaaxle mu déployé matériel bu tolloon indi ni dinaa jàppale mboolem ñu nekk ci dëkk ba fu gan bëgg jaar jaar fa jàll waaye waaye sant ko gërëm ko war nanu asgor nag buñ la lebalee tiraanga da ngaa war a xalaat nooy fexe ba tiraanga jooju nga delloo ko la ko lebal waaye waroo tëdd rek yooru lex ni nay nelaw kon Ablaye Sylla bu defee tiraanga ju mel noonu def ko ngir jëmi sëñ tubaa def ko ngir taalibe sëñ Bamba yi kon nag ñun taalibe sëñ Bamba yi ak ñi nga xamante ni bii ñoom ay gor lañ yoo xam ne ku leen difal tiraanga ñu xam ko waaye waaye war nañ koo delloo tiraanga jooju na nag nga wax ko léegi nii fas naa yéene génn ci gafak ak boppam bu takku kenn sasu ko ko waaye mu gis ni jaadu na mu dimbali ay néew doole jaadu na mu dimbali ñoo xam ne bëgg nañoo jëm fenn mu jàppale leen kon moom dafa leble tiraanga waaye tiraanga jooju kon ñun ñoo ko war a delloo kon ñu ngi lay yóbbante kàddu cant ak kàddu yu ngërëm ci moom di ko xamal ni ko lii muy def woyeful ci ñun yëg nañ ko gis nañ ko Serigne Touba la koy defal waaye nag taalibe yi Sëñ Bamba itam ñoom ñoo ko ameel njukkal ñoo ko war a fay kon ci turu meeru Touba monsieur Abdoulaye Ka ñi ngi koy yóbbante cant di ko yóbbante gërëm Cheikh Saliou la femme de Wolor ñi ngi lay nuyu di la wax ni kontaan nanu di leen séeréel ni teewaay bii nga fi teew ànd ak délégation bi ne ñun dey kontaan nañ ci ne am nañ ci mbégte waaye beetunu woon ne li tax beetunu mooy nee sëñ Ablaye Sylla lu wax lu nit wax ci Touba boole ko ci nee taalibe yi gën a jàmbaare ci dëkk bi bu ñu tuddee danañ tudd Ablaye Sylla moo tax lépp def Touba gi nee xaaru ko xaaru ko ci woo nee Ablaye Sylla moom day ñëw ndax xam na ni ci njabootu tuubaa la bokk nee ñu ngi koy sant ci turu mbooloo mi yëpp. mais di leen xamal ni kontaan nañu ne ndax mën na nañoo jóg def dara waaye bu ñu dooleelul duñ dem ne dañu ñaan dañu topp nu taawunu ba fii ñu ko tàmbalee ñu dem ba ñu dégg fu ne sunu ndam mooy seen ndam jërëjëf soxna Asiya daal nañ sëñ Saaliw sant nañ la waaye sant nañ Ablaye Sylla sant délégation bi nga àndal ndax ne bi ñu jógee ñëpp a jóg ànd ak ñun waaye Ablaye Sylla lu ñuy def ci dëkk bi dana ko ci boole ndax boole ko na ci taalibe bi ràññee ko di liggéeyal sëñ Touba kon soxna Aseetoog maam Diarra ak ñu ko àndal teewal fi jigéen ñi ñoom ñëpp ak soxna Faati sant nañ bu baax a baax kontaan nañ taxawaay bi rafet na.